de retour sur le plateau matinal Allô Sénégal mbokk yi am yaakaar ni que vous passez d'excellents moments sur les antennes de la 7TV 9h passé de 9 euh, minutes mbokk yi fàttali leen euh, tey euh, moo nekk li nga xamante ni moo di jour bi nga xamante ni juge bi war na joxe verdict bi concernant le procès bu opposé Adji Sarr ak ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko fële ca tribunal suñu ay ndaw Pape Malick Thiam mu ngi fa donc yéen a ngi gis image yi. Euh, atmosphère bi nag moom moo daal di am euh, fële ca tribunal bu Ndakaaru yéen a ngi gis euh, gendarme yi ñu ngi taxaw nit ñi ñu ngi dugg ñoo ngi génn lu ci mënti nekk rek lépp lu ci tukkee ci ay xibaar dinañ leen ko baaxee ci li nga xamante ni moo di suñu ay plateau matinal bi nag bu jàllee di ngeen am le flash d'information waaye à 11h di ngeen am li nga xamante ni moo di la mi journée l'avant-première ngeen di ci ànd ak Sister Maria ak ak Bira ak seen ay gan dinañu gën a yaatal eh, li nga xamante ni rek eh, moom moo nar am fële ca tribunal ba bu ko defee rek ñu dalal Keyna mu ngi ci plateau bi naa ñu ngi lay nuyu di la ziar noo def. Aïcha balaa ngi <laughs> ko nit ñi di ñaxtu yow nga ñëw sol Saint Valentin rouge bu bu bu pop ah. ba woo. <laughs> def ko ci tenam. nuyu naa la fay naa la noo def. maa ngi nii Aïcha yaa ngi si jàmm alhamdulilah. bien ñu bàyyi la nuyu mbokk yi ah. merci beaucoup c'est toujours un plaisir di nuyu jox ak euh, imam yi nga xam ne fekk naa leen fii donc di nuyu également invité yi nga xam ne ñoo fi jugu mais tamit di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan bàyyeekoo seen kër jàpp li nga xam ne mooy euh, matinal Allô Sénégal léegi léegi rek Aïcha. Hmm. tey moom ci beauté la ñuy ñëw. ci ci beauté xam naa ne li ma fàttali un peu sa ngénte sa foto ngénte faaw maman envoyé ñu ko fii ñu ne ko dajji si télé bi. dalal ak jàmm alors ñu ànd ak euh, oustaz Lamine Gueye euh, jeudi passé ñu ngi doon waxtaanee li nga xamante ni moo di ak màkka ndax dañu nekk ci li nga xamante ni moo di période bi waaye dañu euh, tënkoon ni que dañ koy daal di àggale fii ba boobu rek ñuy wax ngëneel lii ak li nga xamante ni moo ci war ujaaji mm. ay ji lañ leen woowee. waaw xujjaaj. xujjaaj xujjaaj pas ujjaaj xujjaaj. <laughs> ay ca oustaz tey ci ci la la ñuy waxtaan. waaw ba tey rek euh, dañuy continuer rek di waxtaan ci mbirum aj màkka parce comme ci période bi la ñu toll te am na suñu mbokk yu bari yoo xamante ni fi ñu toll ñu ngi waaj pour dem alors euh, naka la ñuy war a waajee waaj bu wér ak naka la ñuy demee dem bu wér boo xamante ne bu méngoo ak charia lay doon. Mhm. Euh, boo xam ne du dara du ci dérouté. Euh, ngir yàlla nangul ñëpp <clears throat> ci loolu la ñuy continuer rek incha allah fii ak aj gi di passé ci aj rek la wax incha mhm. allah. da ngay faral di dégg ñu naan màkka mit. cest à diir mm. aj màkka yombul. Mm. avant ngay dem préparatif yi yombul. Mm. soo demee makka la fa ne yombul waaye boo ñibbisee itam. du yomb ndax ganale beeg yooyu noonu ziyaar yeeg yooyu noonu mais déjà ki war a dem. bu demee ba yéeg ca waruwaay wax maanaam li ko yóbbu. est am na ay ñaan walla lu nga xamante ne war na ko wax. waaw <coughs> boo demee ba yéeg ci waruwaay wi nga xamante ne <coughs> moom moom moo la war a yóbbu moo xam oto la ndax am na ñoo xamante ne oto la ñuy demee <coughs> parce yàlla dafa waxoon ne euh, yaatina min kulli fajjin amiqin yaatuka rijalan wa ala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiqin yàlla dafa waxoon yoon ci yàlla Ibrahima ne ko wooteel rek am na ñoo xamante ne bu ñu ñëw dañuy dox am na ñoo xamante ne bu ñuy ñëw dina dinañu war ci bépp xeetu waruwaay gis nga yàlla daf yàlla moo xam tey moo xam ëllëg booba xeetu waruwaay yi giléem la woon ak euh, fas ak baax la ak yooyu mais yàlla signalé woon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, yonent yàlla Ibrahim ne ko yaatiina <coughs> euh, rijaalan wa ala kulli daamirin ak ci bépp xeetu waruwaay mm-hmm. bépp xeetu waruwaay boo booy bu lay yóbbu nag moo xam moo xam oto la moo xam métro la moo xam Euh, avion la moo xam saxaar la moo xam lu mu mën a doon moo xam sax giléem wala fas boo yéegee ba toog ci kawam dangay wax bismillah waaye bul bul yég ci rahmaani rahiim ji nag hmm. waruwaay oto moo xam même même oto li foofu dinaa ci bu benn kii bu ndaw porox ndoolu bu ndaw pour signaler waale lii kenn du war ci kaw fas walla ci oto walla bépp xeetu waruwaay di yegg ci rahmaani rahiim parce que rahmaani rahiim yërmande la te ki ngay war ci kawam yërëmuloo ko ki ngay war ci kawam yërëmuloo ko booy lekk aussi waruloo yegg ci raxmaani raxiim ji li ngay dugal sa gémmiñ di ko sàqami di ko jàllale ci sa biir loolu yërëmuloo ko moo tax moo tax waaw ah yow da mel ni ku bëgg ginaar nga suqi ko saaf ko. sa ku bëgg ginaar la. <laughs> ay sa ñan ñoo lay suuf bi. moo tax boo maanaam war. ci dara ak bépp xeetu waruwaay ak lekk ak naan doo yegg ci bismillahi rahmaani rahiim ji bismillah rek ngay wax. Hmm. booy rendi aussi rendi aussi doo wax doo yegg ci rahmaani rahiim ji li ki ngay rendi yërëmuloo ko. dëgg la te te rahmaani yër miséricorde la rahiim miséricorde la alors boo yéegee ba noppi ba da wax bismillah. nga wax subhaanallazi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqranina wa inna ila rabbina la munqalibuna loolu li muy tekki mooy sell ñeel na yàlla mi nga xamante ne moo ñu tàggatal lii ba ñu mën cee war bu ñu yóbbu dee oto la nga yàlla moo la ko tàggatal bu dee avion la yàlla moo la ko tàggatal bu dee fas noonu bu dee giléem noonu nga ne maa ngi tudd sellu yàlla gi nga xamante ne moo ñu tàggatal lii yàlla bu ñu bàyyi woon ak suñu bopp rek kii du ñu nangul xam nga gileem ak ni mu toll fas ak ni mu toll bu ko yàlla tàggatalul woon doomu aadama bi doomu aadama du ko sax ñemeñ a jege ba yéeg ci kawam nga ne nag ah ngi sant yàlla mi ngi ñu tàggatal lii eh, mënuñu ko woon a tàggatal suñu bopp waaye nag lépp rek ñu ngi ko jël delloo ko ci loxol yàlla subhaanahu wa taala loolu mooy li ngay wax boo ko mënee wax ci arab baax na boo ko mënta wax ci araab it nga wax ko ci làkk bi nga dégg rek alors man amoon naa ñaari question imam tey bu nekkee da ngay dem màkk booy génn sa kër lan nga war a wax hmm. euh, donc ak euh, bu nekkee euh, naka nga war a waajalee rek li nga xam ne mooy sa demu màkk waaw bu fekkente ne danga nga fas yéene dem màkk déjà ba nga dem ba dogu li nga li nga war a njëkk a def rek mooy commencer faxas sa xol ci lépp jël sa xel yépp nga nga viser ne yaa ngi fas yéene sóobu ci jaamu yàlla gu rëy goo xam ne ponk la ci lislaam muy aji ndax yàlla moo wax ne fa isa azamta hmm. fa tawakkal ala boo demee ba dogg nag na nga sukkandiku ci yàlla nag waaw boobu nag léegi nag décidé nga nag ne nga bërit yaa ngi waaj nag léegi nag sa xel yépp fëgg ko ci lépp nag fas yéene sóobu ci joom ci jaamu yàlla bu rëy boobu nga nga def yéene boobu hmm. ci sa xol waaye li nga war a njëkk a def nag mooy bu fekkee da nga amoon ay bor na nga dem nga fay bor yi. nga fay ko. Hmm? képp koo xamante ne da nga xuloo woon ak moom wala da ngaa réeroo woon ak moom wala da ngaa jàppante woon ak moom demal ba ci moom nga saafante ak moom nga baalonte ak moom àq. Mm-hmm. baal leen ma àq baal naa leen ah surtout ñi nga xamante ni wóor na la ne am na. ñugu euh, ñugu rëkk-rëkk bu nekk sa diggante balaa ngay dem aji ñun ñëpp na nga leen baalu àq boo amoon ay bor na ko na nga ko fay na nga tàggu say mbokk. say mbokki jege ñaale ak mm. say xarit ak say dëkkandoo bu ko defee ñoom it retour li leen war moo ñu ñaanal la yàlla na yàlla teg leen ci yoonu jàmm mm. yàlla na ngeen ci bu jàmm ngeen dem ak jàmm ñëw ak jàmm fekk ñu fi jàng yàlla defaleen aj bu ñu nangu lii mooy li nga xamante ne moom la nit ki di waajee euh, balaa ngay dem aussi na nga saraxe dara toggal aw ñam même laax saraxe wala euh, ginaar kon saaf ay ginaar comme yow ginaar rek nga kii xam naa ne yow moom booy def ay ginaar ngay saraxe <laughs> ah wala ngay saraxe lu riche daal wala nga saraxeel rek sa kemt lay kàttan saraxeel dara rek loo xamante ne da nga koy def rek te yàlla rek tax hmm. balaa ngay dem na nga génn képp ku bëgg a aji balaa muy génn këram na na na saraxe na saraxe dara hmm. euh, <coughs> te itamit nag euh, boo génnee balaa ngay génn sa kër na nga jàpp ba sell balaa ngay génn sa kër bépp ujjaaj na ma mhm. ujjaaj yi déglu fii fu am solo la balaa ngay génn na nga jàpp ba set nga lal sa sijaada sa sa si ci sa biir kër ci mm. biir kër gi balaa ngay génn nga julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi faatiha ngay jàng ak qul ya ayyuhal kaafiruuna ñaareelu rakka bi faatiha ngay jàng ak qul huwa allahu ahad <coughs> boo paree nag nga jàng nag inna anzalnahu fii laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayru min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matla al fajri nga daal di jàngaan ko defee nag joxante nag ak nit ñi yaa ngay génn nag naafila googu boo ko defee rek da nga war a génn nag doo desaat boo ñëwee ba ci buntu kër gi li nga boo na nga njëkk a génn sa tànku sa tànku ndeyjoor nga wax bismillahi laa hawla bismillahi tawakkaltu alallaahi bismillahi tawakkaltu alallaahi laa hawla wala quwata illa billahi la aliyyil azim hmm. fi ngay waaxoo nag jëm nag ci waruwaay bi nag ba yaa ngay dem nag léegi nag ci yoon wi ba ba nga yegg màkk del répété baat yi may bëgg wax allahuma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya ah. yooyu ay loolu lan nan lañ koy tekki. loolu li muy tekki mooy. loolu li bu la neexee. boo fekkee dégguloo ko li gënoon mooy nga wax ko ci arab bi ndax yonent bi euh, ci arab la ko jàngale waaye boo ko mënul. loolu mooy yàlla maa ngi sàkku ci yow nga musal ma ma euh, réer walla ma réeral kenn mm. yàlla maa ngi sàkku ci yow. nga musal ma may toroxal kenn walla kenn di ma toroxal yàlla maa ngi sàkku ci yow nga may ma may bañ a ñàkke teggin wala ñàkke war ma kenn wala kenn di ma ñàkke teggin wala kenn di ma ñàkke war ma lii rek mooy tënk bi mm. lii rek mooy tënk bi boo ko mënul ci olof wax ko ci mànkaañ wax ko ci séeréer wax ko ci xaalpulaar wax ko ci làkk bi nga dégg làkk yëpp euh, waaw amoon naa question bi bi ma ko laajee la fois passée euh, entre umra ak aj dégg naa aussi na aj aussi du benn façon aj lañ moo am mm-hmm. ñaata façon aj moo am ak nan lañ koy euh, ci lislaam ñetti façon aj faj aj mm. ñett bu njëkk bi mooy al ifraat <coughs> al ifraat dinaa la ko tekkil ñaareel bi mooy attamattu ñetteel bi mooy alqiraan bu ci nekk dafa am atte dafa am aussi nu ñu koy defee bii nga xamante ne moo di ifraat mooy ki nga xamante ne dafa ñëw dafa fas yéene maanaam fa muy armale xam nga kenn ku ci nekk am na foo xamante ne boo fa yegsee foofu ngay summee yére yi bu dee góor la bu dee góor la summi dootu am dootu am sañ-sañ nga sol yére bu ñu ñaw mm-hmm. dootoo so dootu am sañ-sañ aussi nga sol mbaxana ah doo am sañ-sañ aussi sol lu mel ni ay bot dàll yu gudd déedéet doo am boobu sañ-sañ loolu bu fekkente ne yegg nga ca miiqa ba maanaam fi nga xamante ne fi nga war a euh, armale euh, boo armalee ba noppi da ngay wax euh, labbayka allahumma hajjan yàlla wuyu si naa la waaye nag damaa fas yéene aj si rek la bayka allahumma hajjan yàlla wuyusi naa la ci sa woote bi waaye aj rek laa nar a def loolu boo ko defee boo ajee ba sa aj jeex bu la neexee nga summi say armal euh, quelque jours après nga dellu waat armalaat def sa umra bu la neexee mm-hmm. kooku nag kenn du ci rey ab gàtt amul sacrifice boo ciy def ñaareel ba mooy ba mooy attamattu attamattu mooy Euh, maanaam aj goo xamante ne da nga ci boole umra ak aj waaye nag ni nga koy boolee mooy da ngay jiital umra bi boo umra ba pare dindi terexlaay yi teg fële sol say yére dem ca marché ba bu la neexee li ñu la tere woon ci aj gi yëpp léegi dagar na ci yow bu la neexee sax boo boo dee jëkkër ak jabar yu ànd sax am nañu sañ-sañ ñu ñu sëy ci umra gi waaw bi ñu umra ba pare mm. te aj gi jotagul demal ca dëkk ba demal seeti say bokk bu la neexee sax nga dem ba beneen village am ñoo fa seeti am ñeneen nekk ca marché ba di jaay ak a jënd waaye boo demee ba juróom-ñetteelu fan ci weeru ci euh, weer wi ñu jëm muy muy tabaski moom lañu ñu wax yow mu tërwiyati ci ngay sanguwaat nag armalaat pour fas yéene nag def aj gi nag boo ko. ah kay déedéet cangaayal dé ah kay di nga sangu cangaayal farata gi laa wax cangaayal farata pas cangaay ak sangu ak ah. saabu ak njàmpe xam nga booy armalu da sangu cangaayal farata waaw cangaay googu laa wax mais pas cangaay njàmpe ak saabu waaw mhm. euh, ci juróom ñetteelu fan bi ci ngay sanguwaat sa càngaayal farata dal di euh, armalaat pour fas yéene nag soobu ci aj gi loolu nag képp ku ko def obligatoirement dafa war a sacrifier benn benn gàtt. d'accord troisième aj bi. bi moo di alqiraan mooy ki nga xamante ne fa mu armale dafa ne labbayka allahumma umratan wa hajjan yàlla ñëw naa waaye dama fas yéene cumuler les deux dama fas yéene umra dama fas yéene aj kooku bu xasee la bu xasee ba armalu dootul am sañ-sañ mu dindi Euh, lëkkaay gi fekk umra gi ak aj gi yëpp jeexul kooku bu ñëwee rek dafay daal di sóobu ci euh, euh, aj gi ci umra gi maanaam julli ñaari rakaa ci maqaamu Ibrahim daal di tawaaf kaaba gi juróom-ñaari yoon daw safa ak marwa juróom-ñaari yoon daal dem ca kër ga toog waaye nag du dindi lëkkaay yi de hmm. te it nag enchaînement lay doon de du am du parfumé wu de du dagg ay wewam de du wat karawam de du sëy de. ba affaire bi jeex. ba ba ba jour ba aj gi ñëw mu alors euh, ak ajam kooku aussi nag euh, kii warul ci moom fit euh, fidia maanaam xëdd yu warul ci moom amul dara lu muy lu muy lu muy sacrifié. Mhm. que moom dafa cumuler les les deux. ok donc ñëwee enchaîné loolu laa laaj man loolu heureusement loolu leer na parce que man pour man ku dem makk rek par force da nga war a rey. déedéet euh, euh, euh, tabaski ak ak ak ak gàtt boobu bokkul. ah bokkul ah d'accord bokkul. Imaam man amoon naa benn dernière question. s'il vous hmm. plaît hmm. damay gis ne ñoom ñi nga xam ne dañuy nekk ci kaaba bi góor yi dañuy faral di wattu ndal. jigéen ñi tamit dañuy faral di léttu létt yi nga xam ne dafay aju ci kaw comme genre faatu ay renversé faatu yi daje fii léegi loolu lan la ci exactement et puis ñoom ñëpp dañuy solo le blanc. waaw xam nga blanc bi yonent bi salaay salaam moo wax ne al ilbisu al bayaada wa kaffinu mawtaakum yonent bi moo wax ne dee leen sol lu weex. Mhm. même bu dul aj ga sax. Mhm. jullit dafa war a bari lu muy sol lu am na ay turu yàlla yoo xamante ne sax boo koy invoqué guddi. lu weex ngay lu weex ngay lu weex ngay sol. Mhm. Euh, yonent bi moo wax ne dee leen sol lu weex te dee leen ko sànge seeni néew. mooy mooy mooy perkaal yooyu nga xamante ne bii ci suñu néew yi. alors loolu mooy indi que ñëpp euh, di sol lu weex mais bu fekkente ni amuloo lu weex te aj gi jot na te bëgg nga aj te waxtu wi jot na solal n'importe quelle tissu n'importe quelle couleur waaye nag loolu ak wattu bi euh, bu fekkente ni wattu bi c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire wat wattu yaa ngay watu ci keroog ba nga rendee sa gàtt ba noppi di génn ci aj gi bu nit bi bu watoo rek loolu mooy aj gi moom jeex na mhm. aj gi jeex na waaye bi ngay sóobu nag moom pour watu c' est pas obligatoire. c' est pas c' est jigéen ñi aussi alors euh, loolu organisation la pour ñu mën a tënk seen karaw rek ba nga xamante ne du du leen sonal ak yooyu waaye du. Euh, obligatoire déedéet alors euh, ñu bàyyi la nga conclure. fekkee dañ ko war a continuer waat ñu ñëwaat jeudi ñëwaat incha allah mais li may li may sàkku rek mooy lii bu fekkee am na ay jaamu yàlla yu ñuy dégg. te mën ñu jàppale ñu def ko ay brochure dimbalee ko su bëggum ci dërëm mais ñu ma def ko ay ku ma mën a financer ma defar lii parce que ay wax yu am solo la ah. yu warut a ñàkk te ñu bari xamuñu ko ñu def ci ay brochure tasaare ko ci àdduna bi hmm. ma def ko muy sans participation pour jàppale suñu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi aji màkk euh, li fi may tëje rek nag mooy euh, ginnaaw suba ak jàmm sama gàmm ca Pikine tali bu maa ngi ciy woo mboolee mi jullit yaay naa la star na nga ñëw de. bu baax imaam na nga ñëw de. Kajoor na nga ñëw. Alassane na nga ñëw Alassane na ñëw. Maymuna Ndour Faye na ñëw. maa ngi ciy woo mboolee mi jullit incha allah. bu ñu sëlmalee tàkkusaan rek dinañu sóobu ci cérémonie officielle bi incha allah ñu ngi ciy woo ñëpp. jërëjëf oustaz jaajëfal nañu la bu baax a baax on termine rapidement ak Leïna bu baax bi noppee rek ñu dikkaat ci plateau bi ayca.